pour man euh, puisque amoo yenn structures yi euh, sa temps yëpp euh, euh, dossiers judiciaires yi moom moo ko caporalisé woon foogoon naa ne di nga nekk ci ay vingt cinq mille ay trente huit mille doo bokk ci kan ah, doo bokk peut-être ci candidat yi nga xam ne dinañ laal la barre des quarante mille mais vous y étiez plus hein vous vous étiez presque ah. xoolal li ñaata laa dugal 64 087 par an. xam nga yaa ngi nga cachet bi. Mhm. président commission. mais sa mandataire moom 55000 la wax. non loolu mooy bu njëkk bi. yëpp ah, toto yi la bi bi boolee yëpp li ma déposé. Mhm. xam nga bu njëkk bi dama déposé 55000. 570. mu ngi nii ok amul werante yëpp a ngi fi xam nga fii moom yëpp ça se conserve. Mhm. premier kii yaa ngi nii. mu la ko envoyé gis gis nga bu njëkk bi mu ngi ni xoolal cachet bi nga liir loo liir cinquante cinq mille mm-hmm. cinq cent soixante dix par an kon mën naa téléphone mm-hmm. léegi mm-hmm. bi ñu ne ay doublon ay kenn xamul ay noonu ñu des ñu des ñaata ñu des ñaata quarante mille quatre cent quarante mille poussière ñu demandé woon mu déposé cinquante cinq mille cinq cent soixante dix. yaa ci teg sa bët. muy onze mille cent de plus. ku ñu demandé quarante quatre mille nga déposé cinquante cinq mille cinq cent soixante dix. xanaa nga jàll. ah ça dépend tamit ci position bi nga nekk. ak ci septième laa waroon naa jàll. man septième toppoon ci presque ci Boubacar Camara ndax euh, Agibou Soumaré dañ ko éliminé après euh, Ousmane Sonko quatrième ñëwul. Mandataire am ñëwul. am barbier mu ne day xuma lan lay def day demaat ñu bëri ci diggante bi parce que bokkuñu man allah kuleel dama doon a jàll mu gisuma lu tax jàllu ba premier tour. mais lu tax jàlloo d'après. mais loolu loolu sama gars yi la xam naa rek. ñan a ah, xanaa ñi yore góor gi. ah waa Benno bëgguñu nga jàll. ah nee nañ nañu ànd ma ne man ànduma ak yéen ñoo far ne la ngeen bëgg laa bëgg. waaw mais Benno kay bu ñu doon euh, yow ak waa Benno mu leen controverse ay xarit amuñ problème mais mais. kay bu ñu amee intérêt ci kale kay ñoom. ñoom Diomaye man de loolu laa foogoon ñoom Boun Abdallah ñoom Mame Boye Diao ñoom Aly Ngouille ñooñu kay la ñuy kale bu fekkee ne ñoom am nañu possibilité bi non non non j'étais l'adversaire le plus dangereux yow da nga xamul dégg naa ne amoo structure yow loo ci xam ah man yow da xam sama structure non mais amuloo une une structure organisée eh, comme PASTEF comme le PDS. ñooñu ñëpp maa gën a structuré man loolu laay wax. c'est-à-dire une une grosse machine. politique électorale ñooñu grosse machine. waaw ah. médiatico ak ay réseaux sociaux loolu lay am. Ah, yow yow. waaye machine bi ma am man machine xam nga machine laa am machine xol yi laa am machine xolu Sénégalais yi laa am du ma jël ay réseaux sociaux jën ay site internet yu bëree bëri buy xëy suba ba ngoon jot ñëpp ci man la ñu nekk non wala di fay ay journaux wala ay télé ñu lay wane man dafa dafa doon ree pendant les deux mois ñoo def campagne parrainage yëpp kenn gisuma Dakar moo tax ma ne nga teg yi ma def. ma dem seeti samay militant fa ñu nekk ñu teeru ma teer dañuy teeroo buur mobiliser Sénégal yépp pour ñu parrainer ma loolu structure moo koy def waaw mais quand je dis bu ñu wax parti yi nga xam ne coow am. non quand je non man waxuma parti bu bëri coow dama ne parti yoo xam ne électoralement parlant. dañoo def seeni i preuve. man dama def sama euh, preuve. non électo maître bu ñu ñëwaat ci débat. élection dama def suma preuve li man maître noo defee sa preuve électoralement parlant. maa ko def laaj ma. député nga fi nekk. waaw laaj ma plus fort sa jàlle. plus ma beneen bi nga nekkee député. Euh, ci coalition euh, Sopi. Euh, d'accord nga nga bokkoon. waaw may ma donc après boobu ba tey demoo fi élection gagné woo fi élection man kay parti. di ma laaj tontu la laa wax. dama ni. waaw. en 2012 bi may dem élection man kenn ànd ak waa benn boo ko yaakaar ba pare ñu daane suñu bay Ablaye Wade maa ngi koy nuyu di ko ziar góor gu baax ñu daane ko depuis le juin. man dama radicalisé wu alors que président de la commission de l'urbanisme de l'habitat xam ne sunu sunu sunu groupe parlementaire Doudou Wade ñoo ma ko joxoon donc Ablaye Wade mais ba ma gisee ñu ne ay yu yu ma xamul laa radicalisé wu dem ci opposition bi le 23 juin 2011 2012 li ma def jafe naa def boo ko xeebal damaa nekk Benno Bokk Yaakaar parce que ñoo doon Benno Siggil Sénégal ni nga ko waxee léegi. dama bëggoon nekk candidat 2012 sama grand Moustapha Niass ni ma yow sa mag laa sëñ Moustapha la karam intervenir kilifa yu bëri intervenir fu ne mu jaar fa ni naa ñëw jàppale ko boobu xam na ne man depuis le 23 juillet 2011 man ma maa fi nekk mu ne jàppale sa mag bu ma paree man benn mandat lay def jàppale nga nekk président Niass nga may dégg yow xale nga encore loolu tax ma renoncé sama candidature en 2012 ana ñas ci benn sigil Sénégal. mais may ma may foore bay salama bi ñu demee deux mille deux second tour ñu dem ànd ak Macky Sall créé Benno Bokk Yaakaar gagné bi ñu gagné ñu nekk ci ay quatre mois ñu ne dañu dem élection législative xam nga président bu gagné dem état de grâce réew mi ñeewul demal boppam Idriss Seck Macky Sall ñeewul demal boppam APR mooy Macky 2012 Moustapha Niasse ñeewul demal boppam muy Benno Siggil Sénégal Tanor yàlla ko yàlla yërëm Benno ak Tanor. ñëwul teel boppam ñu boole ñoom ñëpp def continuer def benn liste député man leen man député kenn du ko may ci yéen laa bokk mais maa ngi wuti député man kenn ma génn bennoo dem defi sama campagne am plus forest moment boo xam ne un président nouvellement élu mu am alternance bu bees ñëpp ànd ak moom man ma dem ànd ak moom ba falu ma dem wuti député sama bopp kenn du ma may député pourtant plus forest boobu ngay wax <laughs> nit am na plus forest ci def ci 16 mois mu am 15 pour cent ti booba kenn du saboté moom plus forestal ti booba amatul élection présidentielle c'était en 2017 il y avait pas d'élection présidentielle année boobu. waaw mais ci a dem élection waaw mais ma y avait 47 listes yi. yaa ngi rappelé élection yooyu. waaw 47 listes. waaw mais ci nga dem élection waaw teg boo déglu am na lu tax. ah loolu moo tax. parce que maa xam lu tax dawoo dem élection. loolu moo tax xam li li li muy li muy kii. dama ne la pour la ay affaires dem élection ak am structure boo amatoon structure en 2012 du am plus forest devant l'appareil Benno Siggil Sénégal lépp luy broyé. mais man xam lan lay wax. am dans chaque département ah, ay ah, représentants ah, yu ma yu ma yu ma sab sab. un parti politique c'est une structure xam man lan lay wax. loo xam sama structure. xam xam ñi ma nekkal Fatick ñi ma nekkal Kaolack ñi ma nekkal Kédougou. parti yi nga xam ne en fait les grosses pointures yi nga xam ne. affaire am na euh, structure. oui. ku ma ne APR am na structure. kii la APR Dakar. Euh, par Khalifa ku ku kuy responsable APR Dakar. kan mooy responsable. APR Dakar amul benn responsable. xam nga kon ñoom structuré wuñu yu bari. xam nga dama ne kuy responsable. Ah, de mu ngi parcelle. Karim Fofana mu ngi Karim Fofana mu ngi. non woo ma Karim Fofana point yooyu la nekk dama ni. Euh, Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi woo ma loolu loolu am naa ko ma ne fu ne am ah. na ñoom Alassane Thiendella Fall bi boobu. Ah. ñoom Amadou Diallo ji da caaree kaw ah fu ne am naa fa samay nit. yu gën a sori Karim Sall mu ngi mbaaw. waaw oh, damay nag qui est responsable de la paire. à Dakar waaw mais loolu non maître le débat c'est pas. ah yaa ngi structuré dama ne ma structuré. ah même kii moo dirigé affaire Dakar. mais affaire Dakar dafay am responsable selon les élections. ah chaque élection a responsable. oui de dañuy dégg coordonnateur dañuy teg coordonnateur mais mu ne ba am élection. mu structuré naan kii moo jiite déedéet. da ngay am structure ay fédération ay section ay comité bien avant les élections dafa lu mu structuration mais doo bàyyi ba élection nga ne kii mooy jiite loolu structuration. maître man waxuma structuration. Eh, je parle des grosses machines électorales. y' a grosses machines yi amu par les grosses machines électorales kan kan la. connues reconnues euh, Benno Bokk Yaakaar Benno du parti bu euh, ci la bokk. coalition Benno. Euh, APR. ah après consultation électorale la. ma ne APR. APR kañ la dem élection kenn. non waxum déedéet. <laughs> man dem na élection man kenn. APR dem na élection. mosul ne APR kenn. Euh, euh, euh, taxawu Dakar réew mi PDS ñii nii on ñii nii ñu bañ a jàll parrainage mooy surprise bi. kenn ci ñoom mosul dem élection moom kenn. ah d'accord bu ma waxee parti man du ma wax parti boo xam ne man je parle des grosses parti qui n'existe pas amuloo droit tudd ko amuloo droit tudd ko un parti dissous un parti. interdit de fonctionnement boo ko tudd fii du ma ko tudd yéen presse bi rek nit day dee ñu suul ko légalement ngeen di bokk suliwaat kooku c'est une violation des décisions de justice ou bien des décisions administratives mu wax parti boo xam ne il n'existe plus du dëgg alors li ma xam mooy parti yooyu nga wax yëpp gënuñu ma structuré te ñoom kenn ñëwul dem part élection moom kenn ci ñoom kenn ci ñoom benn bokk yaakaar trois cent parti la d'accord bi muy génn man kenn di wuti député dama wuti am plus forest kenn ci ñoom ñu ngadd yi ngay wax ngadd supposé ngadd kenn ci ñoom ñëwul dem moom kenn ba léegi nii ba léegi nii AFP ñëwul demal boppam APR ñëwul demal boppam PES ñemul demal boppam dañu dañu ñu rek nag dañu rek. d'accord alors on en revient au. man rek maa ñemee demal sama bopp. on en revient ñoom kenn mënu ci impressionné ndax ñoo bokk bennoo ma ñemee dem ci ñoom ñoo muñ dem kenn ci ñoom dem moom kenn. on en revient, au parrainage. kenn ñëwul de moom avec quarante mille et quelques euh, admis au deux. au quarante trois mille ah, bu njëkk bi admis au second tour. nga amat quarante trois mille. vous étiez à ça. Ah. d'y arriver. Euh, est-ce que yow da ngay rejoindre le collectif qui contexte la régularité euh, des opérations de contrôle des des, des parrainages. Euh, non. lu tax. d'abord moi je veux pas être ridicule. c'est-à-dire. ci monde bi yëpp Sénégal moo mos a élection loterie nationale. moo mos a dem élection loterie. mooy mooy def élection loterie. Mhm. élection c'est tellement sérieux que warul am loterie. yow am nga droit wuti parrainage am nga droit wuti parrainage. mais hors de passage loolu c'est normal. mais yéen a ci d'accord. ci ci ah, ci comme d'accord def recours. ah d'accord déggoo ma de. bu kenn def recours parce que man xamul lu ma gëm mooy ñun ñëpp dañoo nangu musiba dañoo nangu caaxaan élection caaxaan élection loterie nationale élection loterie amul ci monde bi yëpp sauf Sénégal mais yow mais mu ne est mën a nangu nga dem ba Tambacounda comme man dem Vélingara dem Kédougou dem Kolda dem ay Diaobé dem ay Nioro dem ay Mbégué maa ngi nuyu Dame Sow di nuyu. Kaffrine ñoom Adama si ci li ñu def ci parrainage. yéen ah, a d' accord ci dialogue politique li ma def Nioro ñoom Assane Manka ah, li li ñu def Cheikhou Sadou Ba Niass li ñu def Kaolack ñun li ñu def ba Mbella Kajaw ba Ndiobène Tallène ba Diofior ba Diourbel ba Touba amul fu ma demul Sénégal xoolal ñu am nañ droit def seen parrainage ñëw xëy na keneen xamu nu ñu dafay am parrainage yooyu peut-être ñu ne yow mi demoon wëri parrainage. nit ñëw na jënd ay parrainage xëy na moom moo la jiitu te dafa fay ay millions pour am parrainage yi. kan moo fay ay millions ñu bëri ay millions lañ fay pour am parrainage. ah gars dañu jënd parrainage ñu bëri. oui ñi nga ànd tiitaru fii. ñu bëri ah. ñu jënd parrainage. ñan nga xam ñu jënd parrainage du ma leen tudd waaye xam nañ seen bopp. ci opposition bi la wala ci. ci nguur gi. non nguur gi yow jënduñu parrainage parce ci nguur gi la waaw waay du xam ne dama lay waxal. xam nañ seen bopp ñu dem di négocier di jënd daa di yor génne million cinq millions fii dix millions fii wutale mooy parrainage xamante ne suñ biir am nañu amul ñaari nit man nee naa la wane ay image xoolal tegal ma samay kii sama passage nga xool bi ko mën a teg man tooguma rek di yoon yónnee naan jaay leen ma parrainage après nga mieux placé daal di jàll ki demoon def ay milliers de kilomètres am ay parrainage yu valable nga dem corrompre ñooñu la joxoon parrainage am ñu jox la yow même parrainage ah nga yow yow teg ko fi daal jàll loolu loolu est-ce que loolu ndam la yow boo jàllee <laughs> man damay ree da ngay war affaire bi ñu éliminé dafa ree man ne bu doon man ma nombre bi ñu ma li ngay wax amoo ci benn preuve aussi. dama ci am preuve bi samay militant ñoo ñëw am ñu ma nettali ñi may diw kat diw kat dégg naa joxe na nangama million léegi gars yi parrainé nañ ko wala nañ ko parrainage diw kat ña la parrainé woon am na ñoo xam ne dem na jaayaat ay parrainage keneen. ma ne ah bon rajo koy dafa ci amee firnde moo tax gis naa ci ay parrainage ñàkk jom ay parrainage euh, yoo xam ni boo jàllee sax waroo sax am xoolal waroo sax kontaan ndax da xam da ngaa jënd ay parrainage jàmbur am na ci ay dix millions ay cinq millions ay vingt millions pour am parrainage parce que xëy na li nga yore du jeex xëy na man li ma yore xaw ma dina jeex xaw ma du jeex mais man bu ma ay milliards du ma ko def mais maître euh, yéen ci dialogue national bi yéen yéen a d' accord euh, ñu assouplir les condition du parrainage. man mosuma ci d' accord. ah dama woon ci dialogue dama woon ci dialogue bi. benn dañu taalu ñuy dem man taaluñu ma woon. waaw mais vous dama bokkoon structure. waaw mais vous étiez d' avec le dialogue. moo tax ma ne. xëy na waa dañuy bàyyi ñu bokk ñu. waaw wiy ay ay pexe. mais mais mais boo leen defee consensus boo leen defee consensus ngeen nangu dara. buñ ko appliqué kay. waroo wax ne. ma dañoo nangu caaxaan. non li ma li ma nanguwul yàgg naa ko wax man parrainage d'accord ma ci la preuve ni ñu ko defee baaxul. parrainage bu amul woon musiba ñeel ñu xool en dañuy wax égalité. parrainage bu amul woon musiba mais ni mu amee moo baaxul yow mën nga nangu parrainage loterie nationale yow nga dem wuti parrainage ba Kédougou ñu parrainé la. nii yónnee fa 10 millions ñu parrainé ko bu jiitu la jaar yow nga yow nga toog. non mais man est-ce xel mën na ko nangu. waa mais. dugaloo ma dugaloo loolu ma dugaloo quelque part c'est injuste mais. non euh, bu ñu bu ñu inspiré woo de 2019 ba ñu demee conseil constitutionnel euh, di rang Aminata toure ñu jël ko foofu en en en en tenaille euh, Malick Gakou affaire yi na mu demee ko ils ont peut-être les gens du conseil ils ont appris de leurs erreurs après politique yi nangu ñoom ñu mettre en œuvre. j'ai pas dit ça. hors ah. sujet wax man dama di la. le fait que ma dem ban ba Kédougou am fa ay parrainage dem ba kool Kolda ñu na ma nit jaar ci ginnaaw yónnee xaalis ñu ne ko. mu jiitu la ci ordre mu ñu ñu tiiree mu jàll yow nga toog est que loolu c'est juste loolu rek la wax man waxuma la ay ceexoo ay conseil constitutionnel. mais mais pour en revenir xel moo mënul nangu ñu ne dem la wuti parrainage nga wuti ba am ba téye nit ñëw jënd moom la nga amoon ñëw jiitu la gagné nga toog te moom demul fenn fii la toog Dakar. mais pour en revenir nga ñëwoon ci ñi ñi ñi am parrainage des élus locaux ñooñu amuñu problème ñi am député mais pourquoi doublon amul ci député doublon amul ci ci ci les élus locaux mais les maires mënul am comme pourquoi léegi léegi benn benn parrainage bi ngay wër pour am ko nga nga nekk en danger ndax mën na am doublon ah mais y' a y' a inégalité. un parti bu concourir. au y' a une rupture de l'égalité demain donc parti bu concourir au suffrage ba am député ba mu am élu locaux mais écoute euh, mu am yenn avantage yi c'est normal. non non non dafa a y' a non non non non non non élection présidentielle bu amee bu ame élection bu amee amatul ko ko ko ëppale la Abdoulaye Wade <coughs> Macky Sall dañuy ëppale ko après daane ko kon xamuñ ko ëppale ëllëg day am une nouvelle légitimité électorale. déglu ma de élection bu amee dañuy dañuy basé waat carte yi kenn xamul ëppale woon nga ay député taxul nga ëppale ay nit ci réew mi xëy na sa temps jeex na sa air jeex na war nañ la remplacer ëllëg xëy na da demaat débat concourir Hollande François Hollande président France nekk na président ñu waaj def élection mu ne xam ne bu demee duñu am sa 5 pour cent Macron mi doon ancien ministre de l' économie Duma Manuel Valls premier ministre am kon du affaire yaa fi nekkoon am doon da nga avantage kon François Hollande bu leen wax loolu bàyyi leen xel yooyu élection bu amee dañuy rebot xolal dañuy baasal carte yi kenn xamul ko ëppale kenn xamul day am nouvelle majorité mën na am pourquoi nga ne kon ñii la ñu war a faral faral amul ci élection. donc yow euh, da nga contre le parrainage citoyen euh, parlementaire le parrainage des élus euh, locaux da nga contre mode de parrainage contre mais bu ñu ko defee noonu. ñu institué comme yooyu amul doublon citoyen bu ñëw am parrainage citoyen ñu xool candidature bu baax. numéro carte d'identité numéro carte d'identité. mais un citoyen ne peut pas loolu kay loi bi moo ko. un citoyen ne peut pas mën a bàyyi ne loi loi ni ku parrainé kuñ parrainé ñu xool carte d'identité baax xam nga baax na da nga ko wuri da nga ko wuti war ko annulé ndax naan keneen am na ko xëy na ki def faute mooy ki def parrainé ñaari nit kooku loi bi daf ko sanctionné. <laughs> te ba soo dégg jàpp nañ kenn koo xam ni parrainé na ñaari candidat pourtant loolu délit la délit la ku pare ñaari ñaar jàpp tëj la. mais dañuy bàyyi kii war a jàpp tëj la yow nga nekk victime yow mi ñu paree na deux fois yow mi yow mi yow mi paree na yaa keneen. kon yow victime yëguloo tidduloo. yow victime mais bien sûr. mais yow dafa am ku jënd say parrainage. mais yow am na xaw ma mais li ma wër mooy doublon am na te man xaw ma nu ñu am doublon man boo demee ay ay dànke suuf mi ginnaaw ma leen odaar dem Fass Maam Baba ginnaaw ma leen odaar dem Njóobeen Taaleen dem Njarni ginnaaw Mbela Kajaw dem ay Fimela ay. àll boobu fu ne dugg naa fa. fi naa du àll de. ay ay ñaaxar ay pata ay pataar. foofu du àll de foofu c'est des villes. ma fu ne dugg naa fa. léegi ñu àll bi yëpp ville lañu. communalisation universelle Macky Sall ko fee di ko amatul ku nekk àll bi léegi ville nga nekk. waaw mais nag demeewul li demee ba léegi man li ma la mën a mooy mënuma nangu man en tant que juriste. j'ai été vraiment choqué. Hmm. par l'injustice l'inégalité. de armes mooy yow boo amee député amoo doublon treize boo ko déposé amul problème yow boo amee cent vingt élus locaux maire président conseil départemental amul problème mais yow mu bi gën a métti mooy nga fexe ba am quarante quatre mille et poussière ñeent fukki junni waxuma ñeent junni de ñeent fukki junni ak ñeent ci ñeent fukki junni bari na de ñeent fexe ba am ko ñu ne la bonul de ñu ne am na ko am li nga am yow yëgootinoo. ce sont les règles du jeu te ba. règles yi baaxul mooy mun naa man d' accord gërëm avocat ak règle du jeu. règles yi ñoo mauvaise les règles sont injustes. waa les règles sont absurdes. les règles sont inacceptables. parce que mënu ma li ma la wax dégg ko da nga ko dégg. non dégg naa li nga wax. da nga de wuti am sàccoo ko nit ñëw sàcc wala mu jënd ñeek laa jiitu jàll. muy muy élection loterie nationale l' élection est tellement sérieuse l' élection de chef d' état. a waruñu am loterie nationale ci élection. xam nga li ngay wax. te ni autant fu leen terminer foofu dama ne bu ñu mayee bu fekkee ne amul doublon ci député amul doublon ci ay maire des élus locaux mais fait aussi même bu ñu la pare ne dañu xam ni yow doonoo ci dara mais ñee amuñ benn risque benn danger yow ngay wër di wër di wut di wut ba am 44 mille et ñu ne la ay eh, attention ah, am na 10 mille yoo xam ne. mais mais mais keneen am na ko xam nga yow. li ngay kaas. c'est inacceptable loolu la Bougane Aminata Touré. Abdourahmane Diouf euh, professeur Mary Teuw ñaan ñoo loolu la ñëpp di kaas. pourquoi doo def jonction ci collectif bi euh, peut-être que en mettant la pression euh, vous pouvez obtenir quelque chose dem nañ seeti euh, les chancelleries occidentales adressé nañ. boo man li ma gëm mooy déposé nañu ay recours. li ma gëm mooy nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. la règle ne moo auditeur lu la jàng la fac de droit mooy boo sa dof boo ko defee ba pare mënoo ko jooyee fenn yaa ko teg sa bopp ñun ñoo dem élection takk suñu bopp ñun ñëpp xam ne lii mooy les règles du jeu yaa ngi wax les règles du jeu elles sont mauvaises elles sont injustes les règles du jeu elles sont inacceptables c'est de la loterie nationale élection présidentielle may mu ne c'est trop sérieux pour ñu def loterie donc il faut tiire yow jàpp nga ne da ngay tirer les conséquences de ton choix moo tax doo def recours. man je m'en veux. doo def recours. d'avoir participé à cette élection. doo def recours je pensais je savais que mon heure est venue pour diriger le Sénégal tax ma bokk mais bi ma gisee réellement ni mu déroulé woo ma ne lii lii lu ko gën a nekk lu lu lu lu doy waar lu ñàkk fayda loo xam ne loterie nationale la pour nga toog la nga dem ndax may mun a jiitu na la yow boo ñëwee dubloo nga. te yaa wuti parrainage ba ginnaaw ma lem odaar nga génn ñu jox ma ñu jox parrainage bi may mun a may mun a ñëw ndax xaalis la fay ñu defal ko parrainage mu ñëw ñu ne may mun a jàll na ñu ne ngand la fu nekkee ngand dafa tricher oui mais mais mais am na ñoom day tricher pour am parrainage. mais maître nag il faut respecter le travail abattu par ces gens là qui ont passé le cap du parrainage. j'ai respecté beaucoup ces gens là mais bul bul bul jaxasee ñoom. bul bul bul mais mais ah. les règles du jeu et. les règles les règles les règles mooy numbelaan ku jot sa borom est-ce que loolu baax na les règles de numbelaan est-ce que.